man alaaji fàllu jaxate laa tudd buur jaxate sama doom la mooy sama taaw eh, mi ngi judd 1989 eh, la judd après ma dugal ko école mu commencé jàng école doon ku jàmbaare lool ci njàng mi ko mooy Modou Diakhaté waaw maa ngi ci sant bu baax ci loolu eh, di ko gën a encouragé parce que bi mu demee jàngi ba ñëw ci école Daaru Xuddoos jóge fa dem Fallou Galas jóge fa dem am bagam fële ci ci lii lycée Mbacke bi dem université Cheikh Anta Diop eh, ba mu amee licence am maa ngi ko doon proposé sax mu def leen kii yooyu ay concours yeneen ak yooyu mu ne ma daal jàng rek laa gëm ak jàngale loolu laa gëm eh, ci loolu lay defee ay ay dajale ndànk-ndànk ba sos sos entreprise bi kenn defalu ko ci benn dërëm école bi kenn defalu ko ci benn dërëm man mi man mi papaam defalu ma ko ci benn dërëm kenn defalu ko ci dara moom moo ko sosal boppam ak gëm ak volonté Euh, ma ne ko loolu daal lu ma neex la lu ma lu ma bëgg la parce que man jàng rek laa gëm man moom rek laa bëgg loo tax moom itam xam naa kon loolu ci ci côté boobu man la fi nuru noonu euh, bi mu sosee loolu kon ne ci def ci ay jéego yu am am solo euh, ma ne ko lii moom exemple la. ci xale yëpp ku jàngi ba ñëw waroo toog naan damay xaar ñu jël ma fi wala leen da war a jéem a gëstu jéem a def sa euh, kii bopp pour nga mën a am euh, nu mu tuddati entreprise boo xam ne daal da nga ci mën a jariñu man cee jariñ ay nit waaw loolu moom vraiment maa ngi ko ci kii bu baax a baax a baax jàmbaar la ci.